ma yemale Touba këri diine yeneen yi ndax falaa bokk kon damay wéy di beral loxo Touba Mbacké donte defal naa këri diine yeneen yëpp loolu di kàdduy Abdoulaye Wade ca Touba Mbacké Walf Grand Place ne Abdoulaye Wade nangu na péeteem Touba observateur de Abdoulaye Wade bokk na nag ci la mu dénku xalifa bu tat bi démb wàllu wér-gu-yaramam mu ne du wér-gu-yaram gaa ko jaaxal de waaye dafa am ñu bëgg a saboter élection yi nu dëgmal direct info jàpp ne maître Wade opposition bi lay dànkaafu le quotidien feelu ko ne yamu ca waaye da doon yàq seen der ca Touba ndax manifester yi nu ko daree boobaak léegi ñoom M23 ci le quotidien ci weneen wàll Abdoulaye Wade di ca wax ne su nekkee tey président gannaaw yàlla mu di la enquête ne dara daf leen bëgg a gëlëmal rek ndax bisab màggal gi mu def sax bisab férié bundul liggéey di ko fayiku ci màggal ak ren gi la yem ndax faw ci kay di déwén président bay ñëw signé décret beneen le populaire mel ni ku naan boppam kay lay gëlëmal ndax ndigal moom jëlewu ko fa xalifa bi waxul lu ni mel le soleil xëy ne maître Abdoulaye Wade ay ñaan la sàkk ji woon ci Serigne Sidi Mokhtar Mbacké ngir jàmm ci réew mi Sénégal jàmm joojee sax natable ko moom président lu ñeel wote yu nu dëgmal ndax ci yéenekaay bi de laas ma ca naan février benn bant bale sax du fi tàkk Ousmane Tanor Dieng ci le quotidien ne Abdoulaye Wade la koy yot mooy mbetteel gu naqari 26 février googee moom Ousmane Tanor Dieng nag Sud Quotidien ne dàqul xalaatu manifester bu conseil yooyee jongante Jean Paul Diaz moom démb woowaat journaliste yi ci këram kàddu yenu taataane direct info ma nga ca naan bureau bu nu koy tëj Abdoulaye Wade di daanu ci laas muy wax ne bureau dafa am fu mu jàpp Abdoulaye Wade observateur muy wane moom Jean Paul Diaz li waral wax ji ndax ci yéenekaay bu groupe Futur Média mu ngi nettali ne bureau rek moo am sañ-sañ ak fit dugg ci bureau Abdoulaye Wade palais ba wax ko lu ko neex bombardé génnaat mu ne ba nu fi dàqee baylaawan gannaaw si ñu delloo si baylaawan ci nguur gi soxnaam moom Jean Paul Diaz ca 2006 ak léegi ñu ngi fexee xoqatal njabootam mu ne pat denc lépp ca xol ba waaye nag dafa gis ne doy na faaw lu ni mel dakk léegi doom ja Barthélémy Dias ci yéene kaay bi ba tey di ci wax ne kaso bu moom këram la ne na ndaw ñi rek continuer xeex bi ngir nasaxal candidature bu Abdoulaye Wade wàllu yoon ay journalistes yu nu ca woolu dig tey ji le Walf Grand Place ne Cheikh Yérim Seck ca la Direct Info yëgal ñu ñaar ñeneen bokk na ca njiital a Touba ngir ak ndigal seetkat bi di Selbé Ndom ci observateur di ci wax Abdoulaye Wade nguuram la mu ci wax daanaka soxlawul ak ndigal ndax donte mu ne daan ko gësam mu du wadd moom wadd seetkat bi ne gis na mbooloo mu wutali ca palais ba takk der yu aju foofee di dóori sox waaye Abdoulaye Wade day des ca biir palais boobee ka ko fay wutu nag bu demee bis Macky Sall gis mu ne mu fay dugg wàllu football lu ñeel gaynde yu Sénégal soxna si ne bu ñu defee sarax màngaan ñu ne mi ne ca néegab boppam wàllu lamb sunu lamb diñu xamal koppar yi Luc Nicolas noppee jox Modou ngir bëre Gris Bordeaux téeméer ci million ci la toll yéenekaay bi di Leewtoo moom wax ci mbër yi nga xamante ni màgget nanu ca war a tekki seeni ngemb bokk na ca Ousmane Diop ñu ne Zallo Lac de Guerre Boy Sey Adama Diop Khadim Gadiaga Douglas bitim réew ak faatu président Guinée Bissau Malam Bekay Sagna yéenekaay yëpp xëyee ko tey Le Populaire ba Raimundo Pereira mooy yorandi nguur ga wér ci lu ñeel crise Casamance gi Alioune Fall journaliste di ko dëggal jàngkat bi ci la populaire ne faatug Malam Bekay Sagna dalul xel dara ci Casamance ak wërug jàmm gi. Master Office moo leen doon may seen revue de